ملكت al-fulk mbokk yi jàkkaarloo ñu dañuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ndokkeel ci di leen jaajëfal baax a baax di leen nuyoo di leen ziyaara fii ci jumaa ju mag yi nga xam ni mooy jumaa yi ku tedd kii di Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul fii ci euh, Touba. àndanteeg daairatu muxaddamatul xidma ñuy jiital ci nuyoo beeg ziar bi saahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem ay naalam ak i sumbam mu àggale ko defe ko nu koy njortam waaye itam di siyaar mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp noonu tam lañ siyaaraa mbooleem seex si waaye itam mbooleem taalibe yi bàyyiwuñu kenn di siyaar bu baax itam ki nga xamante ni mooy jëwriñu liggéey bi di sëriñ Afiya Buso di ñaan yàlla kattanal ko ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo aju ci daayira mu xadamatul xidma su ngeen gisee image yi nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw ngeen xam ni nag ñoo ngi fii nga xam ni fi la ñuy waajalee gani sëriñ Tuubaa yi fi la ñuy gaa waajalee njaboot ak seexul xadim gi fi la ñuy waajalee itam taalibey seexul xadim yi suñu waxee waajal taalibey seexul xadim nag mooy dañuy am yàqin ni weer wi mooy weer wi nga xam ni moo gën a leen Serigne Touba Xadim Rasoul ci ak dundam moo tax nag gan ñi nga xam ni dañ leen di berndeel ci ay ndogu ca daairatu muxadamatul xidma di ko amal at mu jot yaakaar naa ñu taxaw ak sëñ Ablaye Diop dana gën a leer ci kanam incha allah waaye nag dégg ngeen conférence bu am solo bi nga xamante ni mooy daw nii yaakaar naa dugg nañ fa gis ngeen PC yi nga xamante ni jël nañ ko fa gis ngeen taxawaay bi nga xamante ni tam am nañ ko fa muy itam euh, conférence boo xam ni dañuy dundal ruux yi waaye itam suñ ci jógee nag daal di berndeel li nga xamante ni mooy euh, jëm yi kon yaakaar naa loolu lépp nag di positif bu nga xamante ni waa daayira mu xaddamatu xidma ñoo ngi koy amal ngir reportage ci bés bu am solo bi lee ngir reportage itam ci daayira bi dañuy wax ab Serigne Ablaye Diop Serigne Ablaye ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la pare tey ñu bëgg rek nga dikkal ñu ci taxawaay bi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma am na ko dellu nag tuuti ci cosaan ak euh, taxawaay bi nga xamante moo sabab nag ñuy taxawal ndogu yi fii. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Moussa ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñiy seetaan Assalaamy TV di jiital ci nuyoo beeg ziar bi lu Mouhamadul taxa mi fi toog jotaayub Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te mooy ko wér moom njabootuk Cheikhul Khadim gi yëpp. Euh, di la jaajëfal bu baax a baax ci ñëw si gi ñëw si fii ngir ànd ak ñun liggéey bi. ni nga ko waxee nag daayira Muxaddamatul Xidma daayira la boo xam ne bu bëgg ami fan la ndax ci jundoom juddoom mi ngi judd atum 1994 mars 1994 lañ ko sos kon loolu ak tey buñ ko doon xool jege na fanweeri at ñaar fukki at ak juróom-ñett ku ci juddu woon tey di góor waxambaane nga bu dee jigéen njega la wala bu ku dem kër sax mën nañ mën nañ wax ne kon daayira bi mi ngi bëgg doon mag mu ngi bëgg doon mu kàllaf euh, bokk ci ay liggéeyam nag mooy liggéey bu am solo bi ñu def ci koor gi nga xam ne tey moo ñu tax a jóg ndax yi mu chargé woo bari na waaye bii da cee bokk bii liggéey bii mi ngi ñu dab ci atum 2005 2005 la ay mbokki taalibe ak i kilifa yu nekk ci dëkk bi seetlu ne daal weeru koor ni mu ni nga ko waxee léegi ni ko sëriñ bi fonke woon euh, xar kanamu tubaa war naa soppee ku rawatina ci barab bii ba tax ñu xalaatoon ne waxtu dog war nañ fexe ba ku mu fekk ci jumaa ji ak li ko wër nga mën a dog sa koor mën a julli doo ko dem ci ñoom bi ñu ko xalaatee nag seen xel demul ci kenn nag ku dul daayira Muxaddamatul Xidma demul fenn it muy barab bu tedd bi di jumaay Tuubaa ñu ñëw waxtaan ceeg ñun ñu dem ci Serigne Saliou mu fi nekkaloon Cheikhul Khadim wax ko ko ndax ñu daayira Muxaddamatul Xidma dafa baaxoo balaa dugg ci dara rek da ciy am ndigal te loolu mooy njàngaleem Serigne Touba laa tafaalu shay'an bi ghayri izni fal isnu sartun fii xabuli sha'ni ci lañ dem ci Serigne Saliou mu joxe ci ndigal euh, wax na itam liggéey bu am solo la boo xam ne ñu bari doon nañ ko sàkk waaye yéen la fi doon xaar kon muy tawfeex ci lañ ko tàmbali 2005. muy dox di dox ba suñu jonn yàlla tey njëlbeen gi nag xam ngeen euh, lu baax njëlbeen gi mën naa euh, xaw a mel na lu ñàkk solo wala lu lu lu xaw a kii waaye bu ñu demee ba ci kanam rek dana dem ba ëpp loxo ña ko doon ña ko doon sos ba tax na at mu njëkk mi daanaka taxawaay yi ñu doon def doon lu woon ne bi set la ñuy def ndogu sax dañoo ay bis ci semaine bi rek lu mel ne alxamis wala lu mel ne dimanche nga xam ne daayira yi ci la ñuy gën di ñëw waaw lu mel ne altine lañ doon def waaye nag ñu dem a dem ba far màng weer wi yëpp di ko def ay ndogu mu doon nag ñaari xaaj yoo xam ne benn xaaj bi euh, bernde la muy dog ku fi dog fekk da nga mën a dog sa koor ci xeet yi ñuy dogee yëpp gis ngeen ko ci imagine muy kafe muy meew muy bisaab muy jinjeer muy euh, xeeti naan yi moo xam ndox mu sedd la wala ay jus wala ay gato wala yooyu nga xam ne day dog koor moom lépp am na fi donc euh, am beneen boo xamante ni beneen fànn boo xamante ni nag yoo xam ne moom la ñuy taarale jataay bi mooy jataay xam-xam yi muy mbirum xam-xam bi nag muy conférence yi ngeen yi ngeen dégg nga xam ne euh, conférence yooyu ni ni ni yëf yi demee la demee woon mooy njëlbeen gi itam doonu toon bis bu waaye dem nañ ba xam ne mbooloo mu toll nii di daje ci jumaa ji war nañ mën a yóbbulu dara ci xam-xam euh, balaa doog a jot ba tax ñu wut lu mat fanweeri jataay yoo xamante ni jataay waxtaan la yoo xam ne dañ koy wéttalante ak mbokki taalibe yi euh, ci ngoon gu jot tey jataay xam-xam yooyu dem na ci àddina bi fépp ñëpp di ko bàyyi xel li fiy ballee ci ay ay xam li fiy balle ci ay solution kenn xamul nu mu toll ba ñëpp di ko bàyyi xel moo xam biir réew mi la wala bitim réew donc kon mel na ne ndogu yi ñaari fànn yooyu la muy ndogu yi nga xam ne ay bernde la euh, ak yi nga xamante ni ay bernde ruu la muy jotaayu xam-xam yi bu dee ci ndogu yi xamante ni ay bernde la euh, wala boog liggéey bi sax euh, ci liggéey bi nag dans l'ensemble moom nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moo koy def xam nga daayira bi dafa structuré wu am ay commission yoo xamante ni en permanence ñoom dañuy liggéey muy commission organisation lépp luy organisation ci biir daayira Moukhaddamatoul moom moo ko yor événement buy mën a doon moo xam koor moo xam màggal moo xam gàmm moo xam luy xew ci jumaa ji njàngum alxuraan yo euh, lu mën doon waa commission organisation ñoom ñoo ko yor ñoo yor setal jumaa jeeg lal mu ket yeeg changé li fi yàqoog lépp ci seen loxo ne am beneen commission boo xam ne commission culturelle la lépp lu aju ci xam-xam ak tàggat ñoom ñoo ko yor dañuy ñu ngi organiser ay conférence ñu ngi organiser ay formation bu yàggut suivre ngeen formation imam ak noddukat yi nekk ci dëkk bi nga xam ne dañ leen doon former ci naka la ñuy noddee euh, nodd gu jub yan baati nodd lañ luñ war a wax ci nodd ak luñ ci luñ ciy tere ñu former leen ñoom lépp lu aju ci xam-xam ñoom ñoo ko yor am commission boo xamante ni commission communication la loolu waa organisation di def waa culture di ko def ñoom ñoo koy tasaare ba askan wi mën cee jot muy commission communication ñoom itam ñooy gérer site internet bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaay Touba waaye itam ñooy fexe ba organ bu ñëw la nga bëgg ci ay reportage nga am ko ñoom waa communication am beneen commission boo xam ne commission sociale la moom moo yor lépp lu aju ci wàllu relation ci biir daayira bi dimbalanteeg relation waa daayira beeg yeneen i mbooloog daayira bi ak ñi nekk ci biteek dégg nga ak lépp loo xamante ni aju ci wàllu santé d'ailleurs at yi weesu sax créé nañ benn infirmerie ci biir jumaay Touba boo xamante ni fexe nañ ba képp ku ñëw ci jumaa ji moo xam ajjum la moo xam événement bu la dara gàllankooree ci sa wér-gu-yaram mën nañ laa defal premier soin maanaam li ñuy def mooy paj mu njëkk xëy na duñ la mën a faj mais am na infirmerie boo xam ne médicament ak matériel euh, médical ya fa nekk ay lal hospitalisation lépp nga fa ak ay jumtukaayam ak ay garab nga xam dañ mën a faj Euh, malade bi ba feebaram tane mu mën a jàll ci yeneen hôpital yu mag yi loolu itam ñu ngi ciy gërëm bu baax district bi nga xamante ni ñoo ci ànd ak ñoom ajjuma jot dañ fi yebal benn médecin ak infirmier ak benn pharmacien boo xamante ni ak aide soignant boo xam ne dañ fi nekk di àndandoog mbooloo mi moo xam ajjuma yi la màggal gàmmu lépp événement yëpp ñu ngi ci am beneen commission boo xamante ni commission euh, moom itam finance lañ koy wax muy commission boo xamante ni lépp lu aju ci finance ñoom ñoo ko yoreel koppar buy dugg bi luy dugg luy génn ñoom ñoo ko yor ak secrétariat général ak secrétariat administratif bi nga xamante ni ñooy liggéey ci ron président bi nga xam ne mooy señ Afiyou Bousso mu ko jiite. commission yooyu yëpp nag ku ci nekk am na rôle bu muy joué ci koor ndax li ma yi ma lim bu ci nekk am na lum laal ci koor gi ñoom itam seen liggéey dañuy def seen plan d'action andi ko bu ko defee ñu ñu déroulé ci biir koor gi moo xam commission culturelle la mboolem waxtaan yi ñoom ñoo ko yor wax naa ko léegi rajab la ñuy tàmbali def ay ndaje xool borom xam yëpp dajeeg ñoom def ay proposition xool ren yan thème moo am solo moo moo mën a méngoo ak jamono yu ñu war a waxtaane am na ci biir euh, fanweeri jotaay yi dix-huit yoo xam ne ay thèmes d'actualité la maanaam fi jamono toll ñu xool ba xam lan moo ci taxawaayu jullit bi lan moo ci tax euh, gis-gisu euh, sëriñ bi ñu mën koo waxtaane waaw bu ko defee yooyu fukki tem la ak juróom-ñett waaye itam am na yeneen i thèmes yoo xam ne ay dars lañ koy wax maanaam ay bind ci diine ay jàngale diine ndax léegi léegi am loo xamante ni itam ci biir diine jafe-jafe lay doon nit ñi dañ ci def ay njuumte wala yu mel noonu gis nga tey jii sax moom moo tombeek moom ñuy waxtaane lu aju ci nàmpal ak ay feral ak yu ni demee ndax njuumte yi nga xamante ni suñ mbokki soxna yi dañ ko ciy faral def loolu kon di ay thèmes yu am solo yooyu juróom-ñetti jataay la ak nag yeneen ñeenti jataay yoo xam ne ay fatawaa lañ koy wax muy ay laaj tontu mooy ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci diine moo xam ci julli wala ci woor wala ci beneen sujet ñu bind seeni laaj yónnee ko dugal ko ci plateforme yi ñu am mu agsi ah, ñu wutal ko nag ñeenti jataay ci weer yoo xamante ni ay fatwa laaj yooyu lañ ciy tontu loolu mooy liggéeyu commission culturelle ak euh, la yoo xam ne war nañoo euh, communication wax la bu fi xew ñoom ñooy de presse yi nekk ci local bi ak national sax fexe ba ñu ñu ñu ñu jàllale ko bu ñu xoolee nag membre yooyu yëpp nga xam ne ñoo liggéey ci koor gi mat nañ cinq cent cinquante personnes juróomi téeméeri membre ak juróom fukk ñii di ay góor ñii di ay jigéen gis ngeen leen ci image yi ñii ñi nga ci daggu mburu ma ñii ñi nga ci ndox rek la ñuy liggéeyee ñoom ndox rek la ñuy mooy seen mooy seenu sas ñii euh, nettoyer rek mooy seen sas ñii lal rek mooy seen sas ñii segg kafe rek mooy seen sas ñii ña nga ca jinjeer ja noonu lañ ko xaaja ay sous commission mooy tax liggéey bi nosu de 6 heures du à 23 heures nag ñi ngi ci jumaa ji di lu am solo loo xamante ne sëñ Ablaye Diop leeral nañu ko muy ñaari jotaay yi nga xamante ni mooy am muy jotaay bi ñu nekk nii muy bendeel roox yi waaye tam jotaay bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ci kanam tuuti muy dog suñuy koor waaye def ko ci anam yu mucc ayib sëñ Ablaye wax ni kon lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukki e, nit daañu xëy si fii kenn ku nekk ca nekk ca la nga war a nekk ak commission yu fasantikoo yi nga xam ni moom la ñu def ngir liggéey bi mën a ñoŋ ba kenn ku ci nekk xam fa ngay tàmbalee xam fa ngay yem loolu di organisation mucc ayib waaye itam nag euh, sëñ Ablaye euh, ginnaaw nag euh, loolu yaakaar naa ni li ñu tudd fii daaw mel ne damaa jot a xelmati ñu ni lu toll ci juróom-ñaar fukki million ak lu topp finance nañ ko ci ndogu yi waaye itam lu jiitu loolu nga ni tàmbale woon na ci sew-sew boo xamante ni xëy na doonu nekk bés bu set ay bis lañ ngeen ko doon jël tey nag ngeen dem ba ci financé daaw lu toll ci juróom euh, juróom-ñaar fukki millions ak lu topp léegi nag ren euh, bis bi fan la ñu yaakaar ni fa la war a jëm yaakaar naa dana dana xaw a yéeme waaye nag ñu bëggoon a xam yooyu koppar euh, fan la war a jógee ak nan ngeen di def ak bonne yi nga xamante ni bëgg nañoo gis liggéeyu Sëñ Tuubaa bu taaru bii ngir mën cee tàbbal seenu ñax. jërëjëf sëñ Moussa gis nga mbirum Sëñ tubaab moo yéeme atum 2005 budget weer wi yëpp 930 000 francs la nga xam ne million bu weer wi yëpp 930 000 francs bis bu nekk un million trois cent vingt cinq mille mooy suñu coût benn bis looloo waral daaw ñu demoon soixante dix million daaw dem nañ soixante dix millions loo xamante ni matériel la yenn yi euh, euh, euh, service la ay fonctionnement la yenn yi ay consommation la donc bon wax nga ko daaw romb nañ soixante dix millions ren ñi ngi envisagé danañ àgg cent millions parce que mbooloo mi fii dajee moo yokku tey gis nga mbooloo bari mu nekk ci biir jumaa ji bokkut ak mbooloo mi nga xam ne bu heure dog jotee dañuy ñëw bu njàngum xasima dama jeexee fa la jóge ñëw ñenn ñi ci marché bi la ñuy jógee jaar si fi dog seen koor nga xam ne juróomi junniy nit gën jaaneew dana fene ñaari junniy mburu ak juróomi téeméer dañ ko consommer par jour sëñ Moussa tax na ñun ñu créé benn petit boulangerie fii boo xam ne lépp luy gâteau petit pain ak euh, moo koy defar fii petit pizza yeeg petit pain yi nga gis fii yëpp boulangerie bi ñu installé ci biir jumaa ji moo koy defar ngir gën a a yombal liggéey bi Euh, sëñ Moussa loolu koppar yooyu koo ko wax xel du danga naan danaan lii sax euh, mënu mënta nekk daal juróom benn saako suukar la ñuy utiliser par jour moom la ñuy utiliser par jour 84 saako yi bisaab yoo xam ne saako bu nekk dana def 15 euh, kilos moom la ñuy def jëfandikoo ci weeru koor bi kon xam nga ne loolu quantité bu bari la quantité boobu mbooloo moo koy jëfandikoo mbooloo moomu nag ku ko dégg da nga ne waaw kon ñii koppar yi fu ñu koy jëlee. waaw kay muy question bu am solo daayira Muxaddamatul Xidma am na ay membres yoo xam ne membre daayira bi lañ dañuy cotiser loolu moom fonctionnement daayira bi la waaye bu dee koor gi moom dafa am budget à ndax dafa doon loo xam ne ni ma ko waxee ci cosaan dafa am ñu ñu ko seqal opérateur économique yi yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi dégg nga moo xam ay ouvrier ay commerçant ay mécanicien lépp ngi ci ay pharmacien Serigne Moussa Mbaye ak Serigne Bara Diop ñoo leen di coordonné ñooñu dañuy dajale seen i ak seen i bagage tàndarma ñii di indi café ñii di indi lu ne lu ne leen di indi donc Euh, njabootu Cheikhul Khadim gi tàmbale ko Cheikh Mouhamadul taxaa moo ci njëkk dugal ab barkeeloo njabootu Cheikhul Khadim gi kenn desut ndax jumaa ji day lépp ñëpp luñ fi def ñëpp ko bokk looloo tax ñu daayira Moukhaddamatoul Khidma ubbi ko ba ku nekk man cee def aw ñaqam ni ko sëriñ bi defee woon ba muy laaj ñaar fukk ak juróom-ñett yi nee na jinne yi ñëw nañ laaj ko jumaa ji ngir defar ko mu jox leen ngànt bañ demee malaaka yi ñëw nañ laaj ko ne ko bu bëggee or wala jamaa ñu defal la ko mu leen damaa amul njaboot te bëgguñu jariñu ci la santaane woon na ku ne indi ñaar fukk juróom-ñett noonu la daayira Muxaddamatul Xidma di doxee dafa bëgg lépp lu lu ñu liggéey ci jumaa ji mu bokk ak taalibe yëpp ndax jumaa ji ñëpp ko bokk naam moo fi nekk di organiser waaye lu ñu fi def nag ñu taalibe yëpp ko bokk moo tax diaspora bi kenn desul mboolem suñu cellule daayira Muxaddamatul Xidma yi nekk Sénégal ak yi nekk diaspora di ci ziar sëñ Assane Diop mi nga xam ne moo leen di coordonné Amérique Espagne Italie France Angleterre Belgique fenn desut bu dee Afrique Ghana Mali Burkina Faso Togo fenn ñoo ñëpp dañuy indi seen i barkeel di ko fi indi loolu la ñuy boole lu fi waay indi lu mu mën a doon moo xam benn doomu tàndarma dañ ko bind ne sëñ Moussa Diop joxe na fi benn kilo tàndarma sëñ Ablaye Diop la ko jox daal di bind leetar bi jox ko turam woowa day nekk ci rapport ba ak lam joxe noonu ba ci koppar yi ba ci lépp buñ paree rapport bu fiable la ñuy def lu ci nekk daañu wax ne jot nañ ci nangam ci diw la jaar ci diw la ñëw fii lañ ko dugal fii lañ ko dugal fii lañ ko dugal bu desee ñu ne waxtaan des na nangam ngir ngir lan li sëñ Cheikh Mbacke Gueye defaat ma waxoon ne nit ñi moom boo bëggee nekk ak ñoom dee leen laaj lu ñu man te di ko def fu ñu xam waaw loolu moo waral daayira Moukhaddamatoul Khidma di doxee transparence boobu ak mbokki taalibe yi muy liggéey bu yéeme boo xam ne foo ko takk weesu na ko da eh, at yi weesu eh, yokk bi féetee kër sëñ fii ñu taxaw ni mu yokk bi féetee kër sëñ Fallou jëm sow wuti kër sëñ Blaat ci la moom ci lañ yemoon waaye ren wëral ba ca kër saanu fépp ni fépp ni te lañu ñu sëñ Saliou waxoon ne euh, da ngeen ci dajeeg lu kawe seen jortu euh, ndax tawféex ju leen suñ borom dencaloon la loolu ñun teg nañ ci suñ bët ndax lii gisoo ko fenn fu dul Makka ak Madina fa lañ ko daan gisee waaye tey daa daara Moukhaddamatoul Khidma tax na jàkk yëpp di ko roy ñi ngi roy jotaay waxtaan yi ni ñuy royee bayaan yi waaye di roy ndogo yi itam dégg ndax mbirum sëñ Tuubaa noonu la deme lu baax moom foo ko gisee war nga koo mën roy man koo yaatal rawatina lu jëm ci liggéeyal yàlla lu jëm ci liggéeyal sëñ Touba kon daal liggéey bi sëñ euh, euh, Moussa gis nga ko mooy fi mu tàmbale woon niru na lu sew waaye ndekete moom fa mu jëm dana kawe njort ba ñëpp di ko yéem. Euh, sëñ Ablaye fi ñuy daane léegi yow rek muy sama yaram daadaw bi ma dugg see léegi ndax gis ñi nga xamante ni bii ñoom laa gis ñuy laalaka teg termus yeeg di teg bagage yi ñëpp ku ci am 30 ans mel na ni bëri amu ci ñëpp ay lañ. takki laxasaay ñii mbàkkee nga ca busoo nga ca euh, ne nga ma xeetu sant wu nekk ma nga ci biir liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci jumaay Tuubaa ji ànd koog daayira Muxaddamatul Xidma lan mooy euh, secret bi tax ndaw ñi takk ay laxasaay yi nga gis ñu def ko ni dañuy xidmaal Serigne Touba ci weeru koor wi ak ca a dem wuti ay koppar. waaw loolu itam mm, sëñ Touba lañ ci yéemaat rek ndax ñii nga fi gis ñëpp tey ku ci nekk seeni maam ku ci nekk boo ko woon maamam ci ñi toppoon Serigne Touba la bokk. waaye gisuñu loola sagam sëñ bi njabootu boppam ji mu jur ñu wax na ay doomam lañ ñoo mën a jaay seenug njureel jënde ko taalibe sakkaa ñi nga xamante ni seen maam dafa futteeku woon ànd ak Sëriñ Tuuba loola nag la ñuy xeeñtu waaye itam ñu doon ñoo xamante ni nii nga leen di gisee lu nekkee ngi ci am na ci ñoo xamante ni ay élèves lañ ñoo xamante ni ña ngay ña nga ña nga ca université ñenn ñi ña nga ña nga ña ca école yi di def ay terminal di di war a def bac ñenn ñi ñi ay jàngalekati alxuraan lañ ñenn ñi ay professeur lañ yoo xamante ni ay professeur titulaire lañ yoo xam ne ay fonctionnaire lañ ñu ngi fii ci biir mbooloo mi waaye loolu lépp gisuñu ko liggéey sëñ Tuubaa rek lañ gis ndax xam nañ ne mooy li nga xam ne moo am njariñ liggéey sëñ Tuubaa moo am njariñ sëriñ bi mooy koo xam ne boo ko lebalee ker mu fay la guddi foo toog muy ker loolu xam nañ ko ndax seen i maam ñoo sëriñ sëriñ bi ñoo àndoon moo tax gone yi nga fi gis yëpp muy ay nii ñu góor ñi mel noonu la jigéen ñi mel soxna yi nga xam ne xëy na ngoon gi ñoom duñ fi bari suba gi ñoom ñooy ñëw yor wàllu raxas bagage yeeg yiñ fi raxas yëpp te liggéeyu jigéen ñoom ñoo koy def noonu lañ mel noonu lañ mel ci ajjuma yi noonu lañ mel ci bisu événement yi muy màggal a gàmm màggal boo fi ñëwoon lu mat junniy nit da ko fiy gis yoo xam ne ay gilet yu vert penc mi ku fi dugg da nga gis membre Moukhaddamatoul Khidma yoo xamante ni dañuy volontaire bàyyi seeni gan bàyyi seen lépp ñëw di taxaw liggéey bi noonu lañ koy defee ci ca armée ca bàq ya noonu lañ koy defee ci comité d'organisation ba euh, nga xam ne ñoo yor accueil hébergement chef religieux yi fii ci kër Sëriñ Tuubaa yi nekk ci Tuubaa noonu ndax problème bi mooy bañ tuddee mu xaddamatul xidma di liggéey ci xidma rek booba lañ amatul guddi amatuñ noppal amatuñ bëccëg. jërëjëf Serigne Abdoulaye ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci euh, oyof gi ak taxawaay bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy ànd ak euh, mbokki taalibe yi saa soo xamante ni soxla nañ lu mel ni ay leeral. ci jumaa ji ak la ca aju yaakaar naa kon ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal fan yokku wéer gi ba xidma googu yàlla bu ci dara réer di sant bu baax a baax sëñ Jili Buuso mi nga xam ne mooy yore lépp lu jëm ci wàllu communication bi moom tamit ci am ci taxawaay bi am solo boo xamante ni yaatal na olof yi nag dañuy wax ni ku yokkul da ngaa wàññi ca sëriñ njiili yokk na yaatal na ca mi ngi def euh, ay jigo ngir liggéey bi jëm ca kanam ak mbooleem ñi nga xam ñooy ànd ak télévision bu mag bi nga xam ne ñoo ne ci jumaay Touba ji ñoom itam di ñaan yàlla doo leen taw feex muy caméraman yeeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax a baax di leen gërëm di santaat ñëpp di leen ndokkeel baax a baax kon di mbooleem ñi nga xam ñu doon ànd ak Assalaamy euh, TV ñu ñaan yàlla doo leen taw feex euh, Serigne Sanabiya yi moo nekkaloon ci wàllu caméra yi di leen jaajëfal baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu